moom lañ fi ñëwee te muy wetu daara di wet boo xam ne bu bari doole la ndax buñ ne secteuru daara sëriñ daara yooyu jàngale alxuraan ña ngi ca biir dongo yaa ca biir waaye juri ca biir dongo daara yi génne ci daara doon yi ay góorgóorlu ñu ngi ca biir kon bi la secteur kat aka yaatu aka bari doole lool ak a a tàllal loxo maa ngi wax kàddu bu gàtt joxe benn misaal euh, jile ndey dafa ñëw ne moo jaboote ba mu naan ñokket ne moo jaboote kat dafa fekkoon doom joj mooy taawam juddu woon bu yàgg juddu nag ci tumuranke miin ko lool di lor lori rek di dund dunduk wereyaan mu dem giir ne juraat na jeneen doom wutal ko mbootu wutal ko roggandaay defal ko defal ko ila afrique ma joxe misaal jeneen doom ji tabaxal na ko jàngukaay bi wutal ko jàngalekat wutal ko ay encadrement war loolu ak moom ci ay formation ci leneen leneen féete ko fu baree bari donte fam ko féete doyagul ndax waxtu wu ne ñu dégg ñu nekk ci secteur booba di manifester ak di jàmbat waaye jeneen doom jële day moom lu bari daan ko dégg nag ñu koy wax ñu ne taxawal nanoo inspection direction lu bari ñu wax ko idaafa ca daara inspection daara daara daara nangam nangam waaye nag ñi ngi wax ne lay jóg jóg daara daara soxla na ko te daara yàkkamti na ko te daara soxla na lool ku ko tàllal loxo tàggatandi ko alhamdulilah mbokk yii di parti bii di def ñoo ngi wax ci suñ kàddu bopp bu rob ci suñ gis-gisu bopp ak suñ yëg-yëgu bopp ne ñu ngi ciy am yaakaar ñu ngi ci am yaakaar ci liñ jotagun a xam ci ay programme waaye ci liñ jotagun a xam ci ay idéem yiñ ci xamagun day suñuy yaakaar dër na ca yàlla na yaakaar yooyu àgg kon nag doom ji mu mujj a tudd ji ma njëkk a muy taw bi ànd ak tumuraankeem nga di dund dunduk were yam di ñax koog ñu bari xam na nañu ko yàkkamti na lool te soxla lool ku ko gattatu ku ko tàllal loxo ku wax ak moom moo ne ma nga noppi waale lu bari lu mel ni sëriñ Abdullahi mii wax wala mbokkum baax bi ko jiitu woon ma ngay noppi lu bari ci xam-xam bu bari ci gis-gis yu yaatu ci njàmbar bu rëy rëy boo xam ne aw askan soxla noonu ko kon ñoo ngi wax ne suñuy yaakaar mi ngi dër ci bu fekkee am nañu jóg ngir di leen dalal loxo wala di jox jëm ca ñoom wala di am ay xalaat jëm ca ñoom wala di leen jéem a boole ci dara kon foofu suñu yaakaar mu ngi fay dëgër ñu ngi ñaan yàlla mu matal yaakaar ja kon ñu ngi gàttal ci ñi kàddu foofu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu da mel ne ñaari min daa xaw a kii bi mu <laughs> jërëjëf jërëjëf tubarkalla jërëjëf jërëjëf tubarkalla utal leen man jiw leen xam naa jiw leen utal ci loolu képp ci loolu ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu kilifa yu baax yépp teew fi buñ ko tuddee Serigne Moustapha Mbacke ñaa xam Serigne Mame Thierno Mbacke ak Serigne Saalihu sëriñ Murtala moom sëriñ Saalihu moom sëriñ Masamba ak mu yóbbaale boolem kilifa yi ak ñi ñu seqal liggéey bi ñëpp ak sëriñ daara yëpp di mu mubaadara bi nga xam ne waa Madaar am nañ ko muy lu am solo loo xam ne génnee na ay jàngat yu bari yoo xam ne bu waxtu wi yaatu woon danañ ci mën a wax lu yaatoo yaatu bi ci jiitu mooy kon alhamdulilahi rabbil alamina dafay mel ne solo si ñuy wax di ko waxtaane am na ci lu tàmbali di feeñ te mooy organisation bu am solo bi ngeen def ci jamonoy campagne ngay yëg ne am na ay secteur ci réew mi yoo xam ne am na jafe-jafe ngeen def ay panel di ko waxtaane loolu kon doomi daara yi loolu la ñuy xaar ci yéen rawatina nag ngeen jël secteur bu tool toll ne alxuraan ak njàng éducation solo si mu am ci réew mi damay wax ne alxuraan solo si mu am ci réew mi jàpp naa ne waaye réew mi buñ ko xamoon ak kilifa yi réew mi danañ ko gën a dooleel ndax damay wax ne dangay dem ci ñeenti ministre yoo xam ne bu ci ne da fay fekk daara liggéey fa liggéey bu am solo ci wàllu éducation nga dem ci wàllu emploi nga dem ci wàllu médecine dégg nga dem ci wàllu solidarité bu ci nekk daara dafay liggéey liggéey bu am solo te bu waxtu yu yaatu woon dañ la mën a leen lu ci nañu leeral la damay wax ne nag jafe-jafe bi nga xam ne daara am na kon ñun ñu ngi wax ci turu markasu iqra li takwin wa taalim alquran wa istiqbaalu talaami si musarradin ñu ànd ak suñu mbokk sëriñ Assane Ndiaye sëriñ daara sëriñ Mouhamed Mbaye ak mboolem kilifa yi fekk tañ bokk ci markas bi moo tax markas bi bi mu ñëwee da ko séddale pour mu jege nit ñi daara moom hôpital ñoo bokk hôpital lu ñu fa soxla nga ne ma am médecine bu mën a faj hôpital lu ñu fa soxla nañ am barab boo xam ne bu yaatu la boo xam ne dina mën a accueillir malade hôpital lu ñu fa soxla muy malade mooy kiy jàng ñu war a dindi ci moom ay jikko hôpital bu fa soxla mooy kuy am am kuy jàppale malade yi kon loolu ñoo bokk même daara daara jafe-jafe bi mu am mooy bi ci jiitu mooy alhamdulilahi rabbil alamina suñ mbokk li mu wax ci daal lépp ak njariñ yi mu jural Sénégal nga xam ne danaa wax ne doy na sëkk ci waa réew mi ak ñi yor réew mi ñu bàyyi xel daara mooy daara yi niñ baree jafe-jafe ak niñ leen war a taxawoo te taxawuñ leen te mosu leen dégg ñu toj fi benn kër wala benn kaar loolu loo ko waral mooy li sëriñ bi wax léegi yar gi leen yar moo tax markasu Iqra bi mu ñëwee gis ne daara lu am solo la am na ay jafe-jafe moom newul fii de wax daa xool rek jafe-jafe yi nga xam ne daara am na ko mu jóg jëm ca loola te kon kilifa yi buñ bëggee fajtal ci daara dañu xool jafe-jafe yi bi ci jiitu mooy gisoon na ne daara dafa am jafe-jafe jàngalekat bari na dañu metti ci secteuru daara mooy ay nit ñoo xam ne dañoo jàng rek defuñu leen formation wala ñu am yéene ñëw di tañax tañax-tañax nag xam ngeen ne métier mu mën a doon dafa laa ñu formé ci nit rawatina ku yor ay téeméeri xale ñaar téeméeri xale ba ñett téeméeri xale moo tax markas bi mu ñëwee jël takk wiin te mooy formation def ko muy ab liggéeyam moo taxit ñu gis ne daara amoon na jafe-jafe lenn lu ci nekk boo ko soxlaa ba ci peres bi peres bu ci nekk boo ko soxlaa am na bureau Pastef fii ñu nekk mooy siège Pastef boo soxlaa waa Pastef da ngay ñëw ci siège bi daara secteur bu toll ne daara ni mu amee solo ci réew mi lu tax boo jàngale jàngalekat mu jafe mu jafe yow boo jàngee ba pare bëgg foo jàngalee mu jafe moo tax bi markasu Iqra ñëwee def ab liggéeyam fexe ba képp koo ja koo xam ne daay jàng ba xam ni mu war a xam mu ñëw foofu bu ko defee sëñ maam Thierno bu soxlaa jàngalekat ñëw ci moom. am na beneen jafe-jafe it mooy xam ngeen ne daara yi donga daara yi ne ci mbedd mi dafa bëri ay jafe-jafe ci daara yi. muy ñi ngeen di gis boo génnee fii rek da nga gis gone yi taxawaalu ci mbedd mi am na ci ñoo xam ne nag ay donga yoo xam ne dañuy jógewuñ ci daal waaye dañuy taxawaalu moo tax nag euh, markasu accueil bi mu ñëwee def yitte ci taxawal loo xam ne day accueillir des enfants talibé bi gone yi nga xam ne dañoo ne ci mbedd mi di dawee ci daara yi mu leen di tëye di leen jàngal di leen yee di leen enquête di xool lu leen tax a daw di gëstuwaale fa ñuy jàng ak seen i waajur muy liggéey bu yaatu moo tax bi mu ñëwee loolu da koo tënk ci aslaxta xaali yi bilal ci xaali yi bilaa bukaay ñu fexe ba njaboot gi jub kocc te du leen duma du leen sonal loolu nag mi ngi jaar ci ñu éduqué wut ay jàngalekat yu am solo li may daane la ci jamono yi ñu toll kenn ko na xam ne ne état senegal bi fi nekk ni ko sëñ Moussa waxee rek ñëpp am nañ ci ñoom yaakaar parce que lii ngeen def jël ay doomi daara ñëpp ñeme leen dugg ci seen biir loolu état yi fi jaaroon amutoon kon bii état buñ buñ yaakaar la kon am na masroolu xaanu asaas yi leen madaris quraan yi mooy projet de boo xam ne état bi fi jiitu woon mi ngi ci doon liggéey naam waaye ci ni ñu ko doon liggéeyee baaxut gis nañ nag état bii nag bi ñu ñëwee ministre éducation bi fi nekk ak ñim àndal muy directeur de daara muy Babacar Samb inspecteur ñu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo liggéey boobu nag ñu ngi leen ciy encouragé te mooy fexe ba liggéey bu mën a doon muy bu dee ci affaire wér-gi-yaram nga woo médecin yi ñu ànd ak yow bu dee ci wàllu daara yi nga woo sëñ daara yi waxtaan ak ñoom ñu jox la ci seen xalaat loolu wax dëgg yàlla def nañ ko ba ña ngi cay sori waaye nag maa ngi leen di wax ne la des na nag liñ naan marsom réag yi te mooy décret application yi nga xam ne président Diomaye fay ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko jàmm moom moo war a jël décret d'application bi nga xam ne mooy gungeelu waa boobu loolu yi ñu def nag ba nga xam ne wàccee nañ liggéey bi ci baas bi ba ñëpp xool ko ba dëppoo ji bu de décret yi ñëwee nga xam ne mooy gunge projet bi nañ ko wàccee waat ci baas bi ba daara yi am ci consensus ñu doog ko wat jàpp nañ ne dana bokk ci ñi njëkk a wate insha allahu taala kon ñu ngi jaajëfal ñëpp jërë ngeen jëf alhamdulilah euh, avant commissaire Khadim Ndiaye maa ngi nuyu délégation bu am solo ci euh, ku mel ne Mawalane Moussa Ndiaye ku mel ne sëñ Thierno Bousso Aliou Ndiaye ku mel ne Ndeye Laagne bu Mouhamadou Diallo Tekki waaye Mami Laagne bu Mouhamadou Diallo Tekki waaye waa Moussa Seck bu Fallou ak Abdoulaye Gueye aussi ñu ngi leen di nuyu bu baax ñoom suñu allié ci wàllu politique euh, ñu ngi assuré tamit.